وجنة من هالك المريد إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع السلام في الآل والأصحاب ربنا السلام خذ مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد صام وقام sëñ Modou ñu ngi lay ziar fekk leen tey jii ci liggéey bi ngeen di euh, bokk ci ñi nga xam ne ñooy manque ndox mi tey ñu bëgg na xam fii ngeen nekk fan la ba ngeen fa tàmbalee ak léegi situation bi loo ñu ci mën a tënkal ak ñi ngeen àndal liggéey bi. jërëjëf waa liggéey bi rek mooy ci turu commission bi ci turu commission bi dañ boole ci turu ci commission bi léegi dañu ñu dénk ma secteur bi nga xam ne mooy li tàmbalee jàkkee sëñ Abdou Khadir léegi jaar fi nga xam ne mooy tëli gerte bi léegi continuer ñuy sotti fa nga xam ne mooy en face kër sëñ Mamborom sëñ Mourtala gannaaw bi nga xamee ndox mi wàcc na euh, te mbir yi jéggi ay dayoo gannaaw boobu commission bi fexe nañ ba wut ay tiwo yoo xam ne dafa manqué woon jóge Dakar toll na ci dix millions trois cent et quelques yoo xam ne dix millions et trois cent et quelques yooyu ngi ko tàllal diggante euh, jàkkee sëñ Abdou ak fi nga xam ne mooy mooy euh, mooy en face kër sëñ Mamborom sëñ Mourtala léegi desoon na trois tiwo mais dañ ko jox waa Gédé Bousso yi léegi nag ñoom waa Guédé bu itam ñi ngi branché di ñëw léegi nag koon nañ ko ba ndox mi di wàcc mais taw bii bi daa rempliraat lépp sapeur pompier daa ne ci suñ ginnaaw léegi nag sapeur xam nga da doon jëlee ci sura di yóbbu directement kër sëñ Mamor léegi bàyyi woon na ay mbedd yoo xam ni ci la oto yi doon jaar ñun nag loolu dañ ci amoon jafe-jafe tuuti ci mbedd yooyu waaye teewul dañ doon def bu ñu monté parce que ñun suñ suñu teewoo dañ ko tëral ca jàkka ja ba ca kër sëñ Mamor sëñ jumaa ja léegi nag bu nit ñi jàll en bu sapeur di jàll dañuy dañuy tekki suñ raccordement mu jàll ñu fay machine bi bu sapeur jàllatee ñu taal loolu tareloon nañu tuuti mais pour comprendre nañ ñu ànd ko ak ñoom ci loolu ak commission ci turu commission bi léegi nag ci diggante boobu dañoo manqué woon xam nga tuyau bi tuyau bi ñu bi ñu monté ni tuyau la léegi nag pour nga pour nga pour nga gas ko ci suuf il faut li ñu capitaine bi waxoon dane il faut ñu jël tuyau 250 parce que tuyau 200 mënoo ci def tuyau 200 pour mu dem tuyau 250 jël ñu roof ko ci loolu lañ doon gas nii ngeen ngeen gis ñu tàmbali léegi taal nañ machine bi machine u la machine Eiffage lañ taal machine bi doole ji mën naa ni mën naa ni deux heures de temps fii man na jeex waaye nag problème boobu lañ amoon dañ doon taal guddi mais mënuñu ko woon am nañ boobu jafe-jafe tuuti bi jees mooy jafe-jafe bu ñu xëyee il faut ñu wax ko bu ñu xëyee parfois daanaka 18 heures la ñu añ waaw loolu ta mais teewul taalibe yi ñëpp ñu ngi ciy jàpp boobu la ñu ak jafe-jafe oto boo xam ni 4 x la bu ñu mën a teg suñu machine yi pour dem dimbali doomu aadama yi di déplacé wu parce que ginnaaw dañuy contrôler tuyaux yi guddi nañ koo bënn wala mën nañ koo yàq amuñu moyen 4 x bu ñu amee 4 x boo xam ne dañ ñu koy jox danañ yombalal ñu mën a surveiller li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy affaire bi. Mm-hmm. mais jafe-jafe yi est-ce que yéen a koy rapporter ba ci fa nga xam ne moo di commission ba ca kër ga. koy rapporter mais dafa xaw a yeex mm-hmm. ñi ngi koy joxe chaque jour ñu joxe ko man ak Samb ak ñi nga xam ne ñooy móorlu ak gars yi commission boobu ñoo ko bokk mais bu ñu joxee day xaw a yeex yeex gi day xaw a yeex ci ñu teel a jot mooy yi. teewa yi nga gis nii pour le moment pan 10 millions 300 et quelques yi gannaaw bi ma ci waxtaanee. bi ma bi nga xam ne commission bi jël nañ ci ay engagement maire laa ci waxtaanal maire ni ko dimbali ma rek man ma ma dem wuti fu ma a lebee bu ñu paree ñu fay ci laa leb ay tiwa yi la woon ay dix millions trois cent et quelque la tiwa yi nga gis ni pour le moment léegi PVC yi maire laa jokkal mu ne ma nañ ko régler après maire régleel nu ko ñu dikk gas ko mooy cent cinquante yi mu ne ma gas ko andil ñu tiwa yi ñu daal di ñu toll koy taal vingt euh, xam yéen li ngeen di manqué kaw tëli yi rek la concerné wala kër yi itam am na yoo xam ne ni yéen ngi leen di wallu. non non maanaam ñun dañuy dem ci point barre yu mag yi point yi gën a rëy nga xam ne gën a bay parce que machine bi ñu yor mooy machine machine bi Eiffage yor dafa toll ni machine nga xam ne moo nekk ci bassin Kër Ñaŋ bi machine bi ñu tëmbal la boobu lengee ko wàccee boobu giri mënu ko wàccee lengee bi moo ko wàccee Eiffage moo ko indaale machine boobu bu wàccee toll na ni bërigo di di nu bërigo toll ni la toll léegi machine boobu lañ fi wàccee léegi nag commission bi dañoo jël beneen commission boo xam ne ñoo yor pomp yu ndaw yi dégg nga baax yooyu ñooy dem ci kër yenn yi di manque ndox mi du ñu ko dolli. ngeen ngeen ngeen koy àggale ci regard ngeen ci ñu koy àggale ci regard bi am na ñoo xam tam ñu ngi connecté ci yeneen secteur di ñu ko jox fii ndax machine bi moo gën a moo gën a gaaw comprendre nga loolu lañ loolu lañ doon def pour le moment ni may wax ak yow dépp booba loolu ci lañ nekk. est-ce que def ngeen xayma ñaata kër ngeen jot a vidéo yooyu yëpp est def ngeen xayma goog bu ñu ko mënoon a xam ci gàttal rek boo ngeen tàmbale ak léegi. non bari na parce que mënuñu def parce que ñun son yi ñu dugg juróom benn téeméeri kër dafay génn maanaam juróom-benn téeméeri kër lañ la ñuy def yoo xam dafay génn mooy soon yu mag yi ay juróom-benn téeméeri kër mais ba léegi moom ndox mi yenn tëli yi la jeex mais jeexagul ci biir kër yi waaw ba léegi jeexagul ci biir kër yi kon lépp luñ mën a yokk ci pompe yi génne biir kër yi ñu gaaw ko yokk parce que loolu tam des na ñu yokk ko boo ko defee yokk effectif bi teyit ñu dimbali ñu wax ak borom oto yi ndax fii branche le woon nañ ko yàq nañ fi trois tiwo oto yi nga xam dañuy jógee Gédé di jaar nii ak yeneen oto toj nañ ci trois tiwo loolu bokk na ci li ñu lu ñu tardé suñu liggéey te buñ ko yàqee population bi dañuy wax rek ñëw wax na ko ni ñu yàq nañ ko yàq ko léegi diggante ba bala ñu ko def dañu am 4 heures de temps pour ñu defar ko ndax liggéey bu métti la bi yees renfort bi ñu am bëriwul waa daayira Muqaddima xitul xitma lañ ma booleeg ñeent ñu ànd ak ñoom waa koñ bi nag ñu li ci des nag mooy fii ci Guédé da ci am ñoo xam ne fu ñu dem ñoom population bi appuyé ci di tàmbali ta ñi ngi ñuy jàppale bu baax ci Guédé ci waa Guédé ñi ngi ñuy loolu mooy problème pour le moment fii may wax yow machine moom bu fekkente du problème machine du problème groupe duutu fay. liggéey bi kañ lay war a pare ci gàttal buñ ko bëggoon a xam. mënuñu ko wax moom mhm. moom daal nañ mel ne xel koom lañ nekk parce que ku la ni léegi la ñuy pare natt ko ci une semaine wala mu natt ko ci déngale koom 15 jours wala mu natt ko ci weer da nax. da nax waaw nañ ci nekk. pour le moment loolu daal mooy li nga xam ne moo fi nekk mais soxla nañ oto bu mën a defee ay intervention pour surveiller tiwa yi.